waaw man Touba laa dëkk gaar bu ndaw non Touba moom ñun feebar bu bu fa newee mënuñu ko daw ndax fa lañ dëkk falañ lañ juddoo fa lañ yaroo même bu fa nekkee du tee dañ fay dem waaw Touba moom luy lore amu fa laa nafin bi laa dararin moo fa nekk luy lore amul Touba waaye man euh, màggaliwu ma waaye chaque weekend damay dem Touba dem ci sama waaye nag feebar bi may bi may dégg foofu moom wax dëgg yàlla moom moom déggaguma ko fenn ñu ne am na kër diw wala kër nangam ak nangam te Touba fa laa juddoo fa laa